fexe daal ba parti boobu leen nekk am na ku nekk ci buumu jokkoo bi bu fekkee ne jàppandi na soxna bi nag ñu jël ko salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi bu baax a baax. bu baax ñu ngi delloo ziar bu wér. waaye ngi sant alhamdulilah. ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax. di nuyu jaay yëpp. yaa kay jërëjëf. maa ngi ci mission bi. waaw kay ñu ngi lay ziar baax. lay ziar bu baax. maa ngi direct bi ah. yaa ngi ci direct bi waaw yaa ci direct li may njëkk samay kàddu comme àjjuma la rek ñaanal mm-hmm. yàlla. Mm-hmm. mboolem ndaw loo xam ne ne faatoon manifestation yi. Mm-hmm. ak nga xam ne faatoo lañ. yàlla leen yàlla yërëm. amiin amiin. te dool leen xolum muñ. amiin seen i waajur te dool leen iman ñoom. ñu a may dañoo bokk ci ñun. tey Sénégal boo amee jàmm nii démocratie am ci kenn ku am sax xalaat de ko wax ni ko bëgg a waxee kenn gi jiituwul ci xale yooyu faat kon nit ñi war nañ leen di leen bàyyi xel a ñaanal xam ne mission bi ñoom lañ bëggoon yàlla def na ko di lañ doon xeex Sénégal nekk ci jàmm Sénégal moom boppam benn dictateur bañ leen jàpp ñaanal ba tey la ajuma ajuma kenn ko na ngay wax di nga xalaat mhm. man li may njëkke samay wax mooy gis nga démb li dàmbu def mhm. ak Clédor uh, mhm. loolu dama ko rafetlu lool ba pare ñaawlu nag ñi tabax foofu doon yëg na ne Sénégal ndekete buñ naan daa am ñoo am xam ne dañoo am feebaru jalit ñii dañoo am jabet cancer yëpp ñu naan maanaam jumtukaay yi matut li fajoo amul ndekete ay doomu aadama ñoo jël milliards yooyu tabaxee ko mhm. tabax yoo xam ne dayuñ ko dara te Sénégal yaa ngi ndóol gi gën yokk nit ñi xiif coupé mhm. ndox mi di manqué mhm. ndekete ay nit ñu ngi milliards dem koo xam ne nii amuñu benn droit pour tabax ñu tabax ko ngir lan ñoom dañoo bokk ci nguur mën nañoo sàcc alalu nguur alalu Sénégal du mujj fenn loolu la ma ciy woon la monsieur le président Bassirou Diomaye Faye di ko wax ne Sénégalais yi dañ ko wóolu am yaakaar ci moom moo tax ñu wooteel ko premier tour cinquante quatre pour cent yaakaar yaa ñoom dama koy wax na ko lu ci man na ko yokk la ci njëkk nag mooy lii nga xam ne ñoom dàmbuñ wane nañ ko te moom mu def ci at am solo muy keroog ba mbuurkaat mm. loolu da lay maanaam il mu def jéem yu am solo pour jéem a lijjanti loolu ndax àdduna dafa toll koo xam ne nii gis nga dëkk buy dem rek waa réew ma ñoo koy doxal mm-hmm. benn réew du jóg ci Sénégal kon lii ay nit yoo xam ne nii dañoo nekkoon ci nguur deux mille douze ak léegi bëgg fee nekk ay milliardaire mm-hmm. nañ lijjanti lépp dama bàyyi dama bàyyi wax Sénégalais yi mm-hmm. wax ji ñu wax naan nit ñi dañoo soxor ak dañoo éñaan ak nit ñi dañoo yéen yow nit boo xam ne deux mille douze yoroo woon dara soo mënee a yor ay milliards milliards yooyu nga yor noonu nit tëdd na euh, yor feebar boo xam ne leer na ko cinquante mille moo ko waroon a faj cinquante mille yooyu moo ko jël ay ko ay immeuble nit ñi dañuy jaawalee iñaan ak maanaam yërmandeeg ak yu ñu nii bu dee ak soxor war ko ci ñoom bu dee iñaan war ko ci ñoom ndax ñoom lii ñu def nii dara gënu ko ñaaw att bu ñaaw a ñaaw a ñaaw la looy jëlee milliards yi Sénégal def ko koo xam ne ni yow moomoo ko dara hmm. nga jël alalu Sénégal tabax ko ci di ko cabal ca jax fa jaxee rek Sénégal ndóol ñu met di feebar bu ñu ñëw faju koo jël dugal ko foofu hmm. kon li may wax mooy na ci président bi dug dugal ci loxoom ba mu leer nañ bu bëggee jubóog Sénégalais hmm. bu bëggee Sénégal yi gën a gën a euh, euh, di ko ñaanal ba gën a topp ci ginnaawam dañuy jënd lii bañ cee am benn émotion bañ cee am benn ay ay affaire yërmande ay affaire dañoo war a waxtaan lii dañoo war a fexe ñoom ñëpp mooy tax bu ëllëgee nguur gu fi ñëw muy ñoom ñii sax ku fi jógee lu leer nañ bañ fay jógee ci paccax mm-hmm. waaye gis nga bis buñ jéemee maslaa nit ñi wala ñu koy jéem négocier daa wallaay nguur gu fi ñëw ñu ngi melaat mm-hmm. ñaareel ba mooy foofu laay tëje mooy mm-hmm. li xaw démb ci ay AIBD muy avion boobu nga xam dafa am jafe-jafe man maa ngi woo ministre de l'intérieur hmm. na ci ubbi ab enquête na ci ubbi enquête bu leer maa ngi ndax loolu daa am lu ko waral hmm. bu nit ñi jàpp rek ab accident la nii rek daa daa tombé rek hmm. noonu ay caaxaan def ko avion surtout ay lu am lu garaaw a garaaw xam ne lépp sécurité lijjanti lan moo ko waral loolu moom nee naa nañ dem Cissé bu xam lan moo waral avion bi def loolu mu def ba Sénégal yépp xam ko boo léegi ci biir ñu xam lii la ndax yi bu dee xew nii nit ñi bàyyi na ñun maasale bàyyi noonu rek ëllëg ci biir yu garaaw a garaaw mën naa xew te loo xam ne kon maa ngi ciy woo maanaam ñi nga xam ne ñoo mooy ministre de l'intérieur wala ki moo war enquête loolu la ci def bu xóot na yaatal enquête bu baax a baax ña fay liggéeyee ak ñi dawal avion beeg ña li ñoom ñëpp. nañ leen nañ nañ leen enquête bu baax a baax a baax xam lan lii man ko waral ak ko def lan lan moo tax lii mooy tax bu ëllëgee lépp lu xew ñu mën koo lijjanti. nëpp nëppal bi moo war a jeex Sénégal mhm. am réew la ñor yoruñu ab carte yoruñu kër réew la ñor réew da nga koy lijjanti. Mhm. bàyyi nëpp nëppal yeeg bàyyi massa wax lépp mu leer. Mhm. maa ngi leen baax di leen gërëm. ñu ngi lay sant bu baax jërëjëf ñaar allah macha allah ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. kàddu yi rafet na te am solo ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko gërëm ci kàddu yu nga nga xamante nii yëkkati na ko di xaarandi rek euh, ñeneen ci buumbu jokko bi ci 77 810 90 90 ngeen mën a dugg euh, joxe seen xalaat ci euh, kàddu askan bi niñ koy defee saa su nekk waxtu yi ñu ànd ak yéen ci ay jotaay bi nga xamante ni ay ponk yu ñu jukki ànd ci yéen ci waxtaan bi di nuyu bu baax a baax ñi nga xamante ni également. ñu ngi ci euh, réseaux sociaux yi di ñuy topp donc li ñu leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di nuyu ku ci mel ni Fabrice euh, ñu ngi koy ziar bu baax mel am na ku nekk ci buumu jokkoo bi salaamaaleykum. salaamaaleykum allo waaw ñu ngi lay ziar si. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa sama sëriñ na ngeen def. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. waa kii sëriñ Mor Niang bu Mbacke Bari la de. waaw ñu ngi lay siyaar di la jox sa wàccuwaay. waaw di la indi nuyu waa région de Louga bi yëpp rawatina Touba Mbacké. macha allah. yéen a ngi si affaire parti socialiste ak tamit aéroport bi. waaw. waaw loolu de moom aéroport bi de li fi xew barki dégg moom surtout bu bees bee. Mhm. aéroport bi daal wax dëgg yàlla surtout bu bees bee moom li fa xew moom wax dëgg yàlla Sénégal yëpp nga koy naqarlu. Mhm. am na nag ñu may woy fii ba Louga gis nga ñoom ñooy woote na ci téléphone xam naa dama nekk en direct pour moo tax mënu leen a jël. Euh, euh, euh, aéroport bi li xew nii. Hmm. man de ma li ma jaaxal aéroport bi Diass sax. Hmm. ak ni ko defaree ne hmm. ak li ci Ablaye Wade jublu woon. defe naa ne yow waru daal. am na négligence nag. négligence totale am na beneen bi gis avion bi bul fàtte ne waa ji neen am na lu ma trente mhm. bu dee am na trente ans te am entretien tamit vraiment mhm. euh, gis nañ ne euh, gisuñu loo xam ne war naa ma na daan avion bi mhm. parce que man mi wax yow technicien la bu dee problème machine la dañuy jëli machine bees tegaat ci beneen bu doon avion bi dafa dakk di dakk di wadd wala nangam ak nangam man ci wax dara mais nañu xool daal ba nga xam ni bu ci négligence amee ñu xool kan moo def faute bi ñu sanctionné leen beneen bi ñoom dañoo luy avion bi sax li waa wax ni léegi dégg naa ko parce que ñoom ah, xam nga air Sénégal international bu ñu demee bay àbb ay avion wala ñu luy avion mais Sénégal yow ban réew nekk man loolu moom ma jaaxal sama sëriñ mhm. parce que man déglu naa leen déglu naa leen mhm. mais mais li ñuy joxe comme réponse yi loolu doyul Sénégalais yi de mhm. doyul Sénégalais yi kii ñu ne ah, de tamit muy Cheikh Bamba Dièye mhm. dafa naa war naa jëlay moto gaayam mhm. ak ministre transport bi ak ñi nga xam ne ñoo yore entretien avion yi ñooñu lan mooy seen liggéey xanaa toog ci kër gi di taal ay climatiseur ah mhm. quand même lii war nañ ko dépassé ak na tourlsi àdduna bi fi toll léegi nga xam ne abaare bi léegi boo ko dëppee ci biir moteur bi rek mboolem luy pand la koy wan attention ah Mm-hmm. en tout cas wax ni xam na li muy wax de. war na am saytuwaat bu baax parce boo xoolee li ñu wax ne moo manqué ci ci ci avion bi mën nañu wax ne euh, peut-être négligence la parce que lu mel ne avion également balaa muy jël vol euh, vérification yi war yëpp oto sax balaa muy départ war na def vérification yëpp euh, waxuma la ak nag loo xamante ni ci day day naaw war a dem ci ci jaww ji donc je pense que ne tey vérification bi ci war a def bi ci war a def yëpp war nañ ko ci def laataa muy muy muy décoller. xam nga bu doon démb sax garaawul mais moment bi ñu toog nii. Mhm. avec niveau technologie beeg digital. Mhm. dama ne la appareil boo ko ci dëppee dama ne la lépp luy pendant la ko wax. Mhm. kon amuñu droit toog bi ak milliards yi ñuy fay ñoom ñu lekk ay milliards rek lañ fi nekk. dañ nañ waxante dëgg. techniciens yi am nañ ci parent responsable yi ma teg tamit di beneen parce que li ma jaaxal. directeur AIBD ba léegi dafa seen directeur général ba léegi. nee nañ la mu de passation de service loo loolu lu mu tudd yow. Mhm. directeur général ba léegi négul de passation de service fan la ne. Mhm. fan la ne fan la nekk loolu am ministre bi ana premier ministre bi weer bañ daanoo ak léegi après bi mu daanoo ba léegi gis nga jël bi ma la waxoon ni jël bi du leen a bett mhm. bëgg naa li ma la wax nii nga xool ko baax jël bi moo leen bett. yëll bi affaire daan da leen a bett te pourtant waxoon naa la ko fii de. Mhm. ñoom ñi ñëpp yóbba seen gars yi ñu dugg ci rajo yi di ma sow mais man suñu borom rek mooy sama wéeruwaay. Mhm. du ma fen du ma tiré amul ma gën benn tërëm mais dëgg fu ñu ko tamit dinaa ma sàmba rek amul ma dem. Mhm. fii naa la toog ñu premier tour ngeen toog premier tour lañ toog. dem ci deuxième tour benn bi muy parti socialiste. kii toog nii amante mbéng nii ak euh, sama sëriñ bi. Hmm. Khalifa Sall kii man maa ngi koy nuyuwaale baax euh, hmm. le maire de Dakar l'ancien maire de Dakar. Hmm. Khalifa Ababacar Sall. la ma la waxoon rek. politiciens yi bu ñu gisee bu ñu juboo yow moom foofu ngay toog sa yoon sëriñ bi ci nekk da ngay toog rek gis ñu ne ñu i doo ko doon waxtaan suuf ba juboo mi tey mën naa toog parti socialiste daanu deux mille deux mille ba léegi nii vingt quatre mënatul nañu Khalifa Sall parce que yóbbu nañ ko fële ci coalition benn sëgal Sénégal jox ko fa conseil économique et social mu jaaxal te kii moom xam ne na xeex foofu noonu ak bi ñuy xeex bi Tanor di dund ñuy jàpp Bamba Fall ma la gis nga Bamba Fall fu mu mujj moom Bamba Fall li ko Aminata Mbengue ñoom waxoon moom la mujj def dafa wiiri wiiri wiiri mais dafa transmet te pourtant loolu la doon béy de hmm. mais xëy na boobu dafa jotagul woon ci moom man la wax maa ngi lay seetlu sama borom ba ma fa ko défendre pour ñu génne ko ba sonn ci kaso bi. Hmm. ba ñu bari ñu nii xanaa mi daa transité dem fekk baamu faal dañu ko dugg te man baamu faal yoruma numéro. Hmm. ku dee dañ la ber bu yomal xam yi ji ñàkk yàlla mu jëm baamu faal yoruma numéro dama ko doon défendre bañ génne ko ci biti. mais dañu leen bàyyi ba mu dee ci biir kaso feebar bi ñu yor coow ko wala wala lool bañ bàyyi ko mu génn. Bamba Fall xëy suba rek ne dem transhumance fekk Macky Sall man na ko yow kay li la li la amante mbéy nga waxoon dëgg la mënoon ngaa ñëw rek benn la c'est-à-dire politiciens yi ñoo gëmul dara dara dara dara moo tax nit ñi leen moytu nañu moytu ne ko politiciens yi politiciens yi gëmuñu dara gis nga bu ñuy transhumé duñ ko yëg ana Idrissa Seck ñu di fii la toog deux mille dix neuf fal ba mu nekk ñëw nekk deuxième nekk cercle opposition mu xëy jaay taxaw fee. Hmm. ay élection yi passé yi damay sensibiliser nit ñi fekk samay rajo ñu taxaw dafa bu leen ko laal bu leen ko laal bu leen lal yi di bu leen lal xam yi di anamu hmm. déggatoo ko fenn déggatoo ko fenn defe naa ne sixième la jël xam nga septième avant daal Sénégal dañuy dof la ñëw booy yi am bac plus huit dàq leen a jàng foofu internet bi li ci yi liggéey ñoom kan moo ko ci man ñu bëgg a nax nit ñi rek toog fii éternellement kenn bii du fi toog éternellement Ousmane Sonko mii nee naa bu ngeen góorgóorlu yow Diomaye si ñii leen yi wóoloo ba teg leen seen kanam bu ngeen fexe ba tas seen confiance hmm. ba Abdou Diouf def na ñaari mandat Abdou Diouf vingt ans la fi def hmm. Abdoulaye Wade def douze ans hmm. président Macky Sall loo a bañ bañ ba ñaari mandat def na mais yéen bu ngeen góorgóorlu li nga xamante ne yéen yaakaar bu ngeen tasee yaakaar ñun ñii mhm. maa ngi lay waatal ci yàlla seen mandat naa bañ a parce que xale yi kenn defatu ci léegi. booy mhm. yi ñoo ko parrainé ñoo ko joxoon caution ñoo jënd oto ñoo xam ne amul fenn ñoo jox ko Ousmane Sonko pour mu yokk sécurité am. Mhm. xale yooyu dañ ko bëggal seen bopp am ci moom yaakaar nañ ñu liggéey te bañ a tas yaakaar xale yi te transhumance yi ma di ko ñaan buñ jël kenn kenn bu ma leen Mm-hmm. yéen journaliste yi ma woote conférence de presse ngeen wër ma moom wax li ma war a wax yëpp parce que mënuñoo yàq parti socialiste yàq PDS ñëw encore yàq APR bëgg a dellu si gis naa ñu bari ñu wax wax ju neex naan xale bi dañu yaroon léegi kii gars yi moo raam ngeen bëgg def ngi mu la mm-hmm. maa bu baax a baax waa kay jërëjëf mais ñoom politicien bu leen gis lu mu ñuy jubóo duñ ko yëg mm-hmm. te Khalifa Sall ngi nii fii toog di doon yaayam ñun ñëpp ñu jàppale ko moom tamit bañ tëj ko ci kaso bi. danaa wax a wax bañ ne kii dafa dem fekki Khalifa Sall. Mhm. ma ne d' accord yéen dañoo toog ay Sénégalais comme nekk ci jafe-jafe ñu di ko seetaan. Mhm. loolu ngeen bëgg non lan dañ ko xeexal ba génne ko ci kaso bi. jërëjëf ci lañ ko ko ci kaso bi. Mhm. tey jii nii moom mi la ko waxoon def na ko da la ma ko waxoon ne defu dafa dem fekki waa APR e keroog bi mu nuyoo ak Macky Sall. laa na Khalifa Sall jeexal na ci politique. parce que day toll fi nga xam ne il faut nga taxaw jël opposition bu leer nañ nga xam ne dara si pouvoir bi li nga bëgg mooy da nga bëgg a jël réew bi comme ni ñu ko jëlee mu fekkee Macky Sall ca pale laa waa PDS si gisoo keroog maa maa ngi suñu gite ñaas ñoo wax a wax ñoom ñu pare ñu asaan innocent li ñu doon bañ lépp ñu bàyyi fi opposition di wote ni waa waa waa kii waa PDS boo Mm-hmm. maa ne ko barke Cheikh Ahmadou Bamba waa PDS bopp. ok jërëjëf bu ne kenn wooteel. jërëjëf jërëjëf maa ngi suñu wàll bi depuis mille neuf cent soixante si bële bi Abdoulaye maye. Mm-hmm. mais tey bi gàcce gi ma PDS teg Cheikh nangu ko. Karim Wade ñu ñu fi bàyyi ñëpp wër yoo xam benn commune. Mm-hmm. suñu commune bi dong moo fi nekk bële. ko. gis nga Dakar yi ak siège yi nekk Pikine yëpp PDS ñàkk na ko. parce que dafa dem région Macky Sall ba pare nga ne yooyu nga seen seen waa ba ñu ñëwaat ñaan ñu mu turee lim ñoom ñoom lim leen def Macky Sall moo ko joxoon digal ñoom hmm. lan la def dossier bu nga fekk la président Macky Sall ne ko dossier bi traité leen ko ñu traité ko ñu àtte ko ñu ne bëgg koo jël ñu mu turee hmm. ma ne ko boo ko jël Macky Sall mi jël seen dossier bi leen ñuy sàcc waa kay jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay maa ngi lay gërëm bu baax a baax di jégalu nag ñi sama gannaaw yàlla yàlla defal jàpp waa kay jërëjëf ñu ngi koy gannaaw waa affaire dem nañ moom réew mi dina am jàmm bu soob yàlla jën yaa ngi nii fekk yàlla fu mu daal gis ay jën faaw ni jën yaa ngi nii mu wër ndomb jën yaa ngi ci biir dëkk bi jël jëli jomaas yi jërëjëf président Diomaye Faye jërëjëf yaa ngi fi teel jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko ziar moom bi kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko ci kaddu yi am solo yooyu la ñu koy jaajëfal bu baax a baax.